bismillahi rahmaani rahiim laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi yabi laylatu mahwi taabi wa tuhri di taasumi biha najaat wal falaa والسرور والنجاح بها الرباح والصلاح مع اندفاع النقم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di di leen ndokkeel ci xew-xew yi diine yi weesu di ñaan yàlla yit xew-xewu diine bii di ñëw yàlla eggale ñu ci jàmm ñu dundal ko ci jàmm ci am ci ngërëmal sunu borom te mooy bisu gàmm gi bu ngeen dégloo euh, xasida gi fi jóge abiyaat yi ñu fi jàng léegi rek euh, da ngeen xam ne kon ñu ngi dëgmal bis bu màgg muy bisu gàmmu gi laata loolu nag ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla mu eh, yokk feq aw fanam ca wéral cër yi ci eggale naal yi ci sago ci ñu ànd moom ci ndigalam nag ci la jotaay bi ame muy jotaay boo xamante ni incha allah day waajal rek walla boog yëgle bis bu màgg bii di ñëw naka lañ ko nar a tërale ban solo la am ci dundu jullit bi rawatina bu taalibe bi ci noonu incha allah danañ jox kàddu gi sëriñ Mbàkke Abdourahman mu nekk nii ci sama càmmooñ mu wax mu fàttali ndigal li nga xamante ne sëriñ bi joxoon na ko daayira muqaddamatul xidma ak mu ngir mu dundal e, gàmmu gi ànd ceeg daayira raw doro yaaxin waaye dana fàttali e, njariñul gàmm bu ci jógee ñu jox kàddu gi e, sëriñ ab Lahad Bousso Makhtar mu wax buñ ca egg waajtaay fan lañ ci toll ak buñ ci eggee naka la nar a tëddee bu ci yàlla àndee ñuy fàttali nag ni loolu daayira muqaddamatul xidma bi nga xam ne sëriñ Afee mii bu sa di al imam farem ndeyjoor moo ko jiite ak sëriñ Ahmad Badawi Mbàkke mi nga xam ne ngànt moo tax teewu fi tey waaye ñun ñi fi teew te bokk ci raw du reyaax ñëpp ñoo ko fi teewal ñaari daayira yooyu ñoo ko nar a ànd bu ci yàlla àndee kon xam naa du ma guddal damay jox rek sëriñ Mbàkke Abdourahman mu fàttali ndigal li sëriñ bi joxoon daayira bi e, bu ci jógee mu waxit njariñul dundal gàmm bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalina maulana muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa ta taala wa barakaatu ñu ngi nuyoo di siyaar di ko tàmbalee ci sëriñ Mouhamadou Mountakha ñaan sunu borom dolli ko kàttan dolli ko wér di siyaare al ummal islamiya di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi ñu dëgmal di gàmm di fàttaliku ganeek àdduna yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam mi sangu bindee fi jataay bi li ko waral mooy fàttali mbokk yi ne daayira bii di muqaddamatul xidma ak rawdu riyaahin cheikh ahmad mouhamadou cheikh sidil muxtaar radiallahu anhu moo leen boole woon jox leen ndigalul ñuy dundal guddig ganek àdduna yont bi fii ci jumaa ji ba tey jii cheikh mahmoud muntaxa yeesalaat ko soññee ci ñaaxee ci waaye taxaw ci it loolu nag la ñuy fàttali mbokk yi muy kon ndigal loo xam ne ñoomit it dañoo fàttali ndigalul sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mi nga xam ne ku ku xam-xam gàmm waxoon na bu yàgg ne axiyatu mawlid nabi min asashi te booba lool yàgg na euh, fonkoon ko lool joxoon ko yitte lool màggal gu màgg saa yu masaana ñëw sëñ Saalix Mbàkke radiyallaahu anhu bu masaana wax ci màggal ba noppi dana fàttali waale gàmmu gi nga xam ne moom sëñ Tuubaa moo ko daan defal boppam loolee nag la kilifa yi jot joxe ndigal ci ñu daje fii ci barabam biir jumaa ji di ko fi dundal ay at a nii nag ñu koy def ci anam gu mucc ayib loolee rek la ñuy fàttali bokk yi fàttali it neen euh, guddi la goo xam ne it nag lépp ngi ci lii sëriñ Mouhamadou a jàng léegi doy na rek waaw guddi gane ak bi ci la ñuy fare sikk yi guddik far ay coono la guddik laabal nit ñi ci bakkar la loolu rek kon ku bëgg tàggoo ki coono ku bëgg a tàggoog ay sikk yu ni yu baaxut yoo xam dañ koy sikk sàkk ci mbir ku bëgg a tàggoog ki bàkkaar fonkal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàngaloon nañ moom sëriñ bi nuñ koy defee tanzimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bis diyaadul minnati li muxlisin muazimi noonu nañu màggal guddi yonent bi te jaa teg màggale ko sunna kon def ci loo xam ne sunna la te liñ ci def fii mooy leen sëriñ Abdoulaye dana ko leeral fàttali siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom jàng alxuraan berne nit ñi loolu mooy sunna kon sëriñ bi noonu na ku ko màggal ci sunna màggal ko teg ko ci sunna danañu womoon yóbbu ñu aljanna te it dana sunuy xéewal dana ci dolli ko waaye nag bàyyi xel ki koy def na nekk muxlis na nekk muhazim màggal yonent rek na ko tax a jóg waaye na ko def ci ixlaas yàlla rek bëgg bëgg mbégum sunu borom dàkk ngërëmam ak kañ yonent bi ak fàttaliku nit ñi loolu it la sëriñ bi di fàttali mbokk yëpp di ci woo ñëpp nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ni ko kilifa yi jiitu waxee rek ndaje mi li ko waral mooy fàttali màggal guddi gane àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ndigalul. ndigal li bàyyi ko woon ci Cheikh Sidil Muxtaar waaye tey jii mu nekk ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñuy ñaan sa borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér mu jox ndigal daairatu Muqaddamatul Xidma ak daairatu Rawdu Rayahin ñu jiital sëriñ Afiya bu so imaam ak sëriñ Ahmadul Badawi ñu dundal guddi googu war doon altine fukki fan ak juróom ci weeru septembre doon fukki guddi ak ñaar ci weeru rabiul awwal ñu dundal ko fii ci jumaay Tuubaa ji nga xam ne mooy jumaag ji nekk ci Tuubaa niñ ko fas yéene dundale nag mooy ni ko sëriñ bi santaane woon rek wax ne nañu gëstu na ko Seexul Xadim daan dundale ci ak nekkam ñu dundale ko noona te mooy noone loolu mooy dañuy jàng fukki kaamil ak ñaar suñ ci noppee danañu def waxtaan woo xam day fàttali lenn ci jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ren jii nag eh, liñ ci bëgg a waxtaane mooy eh, melokaan wi nga xam ne moom la saxaaba yi ànde woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxtaan woowu la def ki ko fas yéenee def mooy Serigne Sam Bousso Abdourahman suñ ci noppee loolu mi ngi doon bu fukki waxtu ak benn jotee lu jiitu loolu nag bu julleegee ba noppi rek danañu tàmbali njàngum xasida moo xam ne euh, Serigne Cheikh Guèye Mayib dana fi jàng Serigne euh, Bolle mbay dana fi jàng waxtaan bi door a ñëw ci 11h ni ko ni ñu ko waxee léegi Serigne Sam Bousso Abdourahman moo koy def su noppee. minuit pile la ñuy tàmbali nag euh, njàngum kuréel mi ànd ak barzan ji dañuy am koo xam ne mooy def bunt ci barzan ji loolu itam ñett ñoo ko daan taxawee muy sëriñ ahmadul badawi mi jiite rawdu rayaahin ak sëriñ afiya bu sa mi nga xam ne mooy jiite muqaddamatul xidma suñu barkeeloo ba noppi jox sëriñ euh, habibullahi jatara mu àggale ko bu jàngee bunt ci barzan ji kuréel bi nga xam ne mooy kuréelu jasbul xulóob dana yëkkati fukki bayit ak ñaar su noppee kuréel bi nga xam ne mooy kuréelu mawaahibu dana yëkkati fukki bayit ak ñaar su noppee kuréel bi nga xam ne mooy kuréelu muxaddamaat dana yëkkati fukki bayit ak ñaar kon ñett noonu la njàng mi di ba fajar incha allah boo ñu eggee ci fajar dana fekk barsan ji bi jeex xaside yi jeex ñu ñaan tëj euh, ba déwén jam jàmm incha allah waaye ci biir jamono yu ñuy jàng nag ngir bëgg ñëpp nekk ci lu leen amal njariñ ni ko sëriñ bi waxee léegi di ko dundal ci sunna ci biir diggante boobu bëgg nit ñi ñàkk jot dana tax dañuy séddale ay xasida ay xas ay diwaan yi xasaayit yoo xam ne sëriñ moo ko def muy diwaan yi nga xam ne mooy diwaanul am ndaa yi muy tagg yonent bi alayhi salaatu ak diwaan salwaat yi nga xam ne daf ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak diwaan quraaniya bi nga xam ne def ko tënkee ay ayatul quraaniya ngir nit ñi àndee ko ak e, e, li nga xam ne ñi ngi koy déglu njàng moom itam dañ koy e, dañ dañ dañ dañ koy durus Euh, naka noonu itam képp koo xam ne mënoo jàng te mën a yor kurus itam nga yor say kurus di def istixfaar di euh, jégglu suñu borom waaye di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bañ fay nekk di waxtaan wala ñuy nelaw wala ñuy def leneen loo xam ne bokkul ci gàmmu gi noonu lañ ko fas yéene dundale euh, jataay bi itam bëgg nañ mu ànd ko dal ànd ko yar ànd ki teggin waxtu wu ñu waree toog na ñëpp maase toog waxtu wu waree jóg na ñëpp maase jóg te suñuy toogaat ñëpp àndaat toog te bu ñu toogee ñu ànd ak teewlu ak nekk ci li nga xam ne ci lañ war a nekk ñi nga xam ne ñoo yore njàng mi itam la mu laaj lépp ci linga xam ne noonu la ko sëriñ bi daan defee ci di leen tuur laj koloñ ci di leen cuuraay ci di leen xëpp ay indil ay xéewal yu ñuy naan ak yu ñuy lekk ndax sëriñ bi ci boppam wax moo ko wax faman taaman hayya ak waman alaa ma in ak euh, wayn wayn alaa ma in xuri yooyu yëpp danañ ko danañ ko faggu incha allahu di ko defee ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi daan defee bu soobee yàlla waaye ñi ngi sàkku nag ci képp koo xam ne faggu nga xewal yooyu indi ko fi ngir bëgg koo def joxe ci gàmm gi soo ñëwee am na ay waañ yoo xam ne moom lañ fi def fa la ñuy jëlee li nga xam ne moom la ñuy séddale ku indi dañuy sàkku nga dem joxe ko fa te bañ ko séddaleel sa bopp ndax barab bi xam ngeen ne ay karo la laa laajul ndox di ci taa di ci tuuru day indi ay mën naa indi ay jafe-jafe laajulit muy neen yooyu yëpp mën naa indi ay jafe-jafe suñ ko tegee ci loxo ñi nga xam ne nag ñoo ñoo yelloo loolu danañu ko séddale ba mu àgg fa mu war a àgg te benn jafe-jafe du ci am kon nag ñi ngi ñaan itam ñi nga xam ne dañuy ñëw tey ànd ak gone gone yi ñu àndal nañ leen waajal ba nga xam ne euh, du ñu nekk ci barab bi di coow duñ fi nekk di yuuxu duñ ci indi benn perturbation waaye ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi it buñ ñëwee nañu xool fa nga xam ne fa la jigéen ñi toogee ñu toog fa ñoom it ña ca a jàng ñu nekk ci njàng bi ña ca mënta jàng ñu nekk ci istixfaar yi ak salaatu ala nabi yi noonu daal lañ fas yéene dundale guddi gi ci ndigalul sëriñ bi ñuy ñaan suñu borom yóbbu ñu ci jàmm dundal ko ci jàmm te suñu borom nangul na ko te fekkewaat ko ay ati at wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon mbokk yi loolu moo nekkoon kàddu yi yi nga xamante ni moom lañ yëkkati ci jotaayu yëgle bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ man muy bisu gàmm gi eh, fàttaliku nañ ndigalul. Euh, sëriñ bi digaleel kilifa yi ci dundal ko fàttaliku nañ tamit lenn ci li ci nekk ci ay njariñ fàtt wax nañ ñu tamit naka la naka la jotaay yi nar a tëdde bu ci yàlla àndee mbokk yit it ñu ngi fàttali ni ñi nga xam ne bëgg nañ cee dugal seen loxo ci lu koy yéwénal ci yónnee ay barkeelu mën nañ ko yónnee ci numéro 77 686 13 13 mooy weef bi mooy Orange Money bi ñuy fàttali ne tamit bis bi mooy dimaas ci ngoon bët sët di altine muy dëppook euh, bisu gàmmu gi incha allah euh, xanaa di wax rek ni ñi nga xamante ne xëy na dañuy bëgg a dugal seen loxo ci ci luy yëwénal bis bi ci indi ay xeewal buñ ñëwee rek danañ gis ndaw yi daayira muqaddamatul xidma ñu sol lu ràññeeku fuñ fuñ ci kuñ ci laaj rek danañ ko jox yóbbu fi ñu war a yóbbu xéewal yooyu ci yàlla àndee kon yàlla yàlla kon yàlla yàlla yóbbu ci bis beeg jàmm ñu wees koog jàmm ci am ci ngërëmal sunu borom jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah biha najaatu wal falaax ma sururi wan najaax بها الرباح والصلاح مع اندفاع النقم